jërë ngeen jëf mbokk internet yu bi pro mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amati mbégte jàkkaarloo ak yéen ñu waat ci appelu Seydina Limaamu fii ci yoof mbokk yi nag euh, ñu dellusi cent quarante troisième édition yàlla nañ ko yàgg teewe ci barki Seydina Limaamu ñu ñëw suñu kër yaay suñu kër xarit muy soxna yaat yi ku ko xam xam ko ak ñun mu nekk nit ku baax nit ku am kóllëre lépp lu ñu xewle day bàyyi yitteem yëpp ñëw teew kon bu appel bi ñëwee lu nu xat-xat rek faaw mu gis ñu ndax moom suñu suñu nit la soxna yaa dañu ngi lay nuyu euh, di la ziar di la ndokkali ci sa bisu maam bi. waa kay Mbaye ñu ngi lay ziar bu baax ange billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar mbokk julliti mbokk taalibe yi ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di ziar. te di ndokkeel ñëpp ci bés bu Seydina salaam ci bés bi nga xamante ne mooy bésu woote bi ñu ngi ciy ndokkati ñu ngi ciy ndokkale jullit yëpp waaye. Mhm. Euh, ni nu ko waxee ñu dellu si rek tey ci bisu sa maam Seydina Limaamu ni gis bis bi ni mu mel mu mel ni woote bi mu doon wuyu si lu àddina di dox nit ñi di ko gën a dégg di di di wuyu si. waaw loolu dañuy wax alhamdulilah rek parce que gëm Seydina Limaamu Mahdi moom dafa noppale. Mhm. ndax woote bi la nga wax nga ko léegi lu muy gën di màgg. Mhm. nit ñi di gën a gëm. Seydina Limaamu dane xamuñu ma bañuñu ma dañu maa xamul damay ba gan gu ñuy séentoo buntu kër ma jaar ca pot ba dañu comprendre xam naa bu ñu comprendre dinañ xam ne yaa Rasuulullaay moo fi nekk. li ñu wala comprendre bokk na ci moom li mu woote boo fi ñëwee da ngay gis ñëpp sol lu weex. Mhm. muy woote jàmm. Mhm. boo fi ñëwee amul sant laay. muy woote ñëpp bokkoo mhm. bennoo te noonu la ñu xamee woon Sénégal. Mhm. waaw Seydina moom alayhi salaam yaa rasulilah li mu oote moom ku ne xam na ne ma ne woon démb moo moo weexoon démb rek. Mhm. tey mu dellusi si fii si der bu ñuul. feeñ fi kon tey li mu woote lislaam la oote. ku xam Seydina Limaamu dëgg alayhi salaam nga xool diineem dëgg nga xamante léppam rek. yàlla yëppam diine la daraam génnul diine jàmm la bëgg jàmm lay woote li jàmm ji am ci réew mi kon tey jii bu ñu ñëwee ci bésam bii àdduna yëpp koy màggal ñëpp koy tiijaan murit ñëpp ñoo fi nekk kon loolu nit ñëpp xam nañ ne yaa Rasulullaah ngi fi tëdd fi ñu koy ñaanal bu baax tey jii képp koo xamante ne yaa ngi fi maa ngi lay ñaanal lépp aajo rek nga bëgg rek yàlla na la ko yàlla fayal fajal lekku fi indi jàngoro yàlla ko yàlla fajal dindil la ko ba mu set parce que ñun amuñu ku dul Seydina Limaamu suñu gëm Seydina Limaamu day gën a yokk ci ñun saa yu appel ñëwee bànneex day dañuy gën a am bànneex te mbay man aw ma bu benn bés bés bi rek mooy sama bés muy bésub Seydina Limaamu alayhi salaam mm. di kontaan ci yow nag sama rakk bopp ci nga xam ne ci lu ma nekk rek yaa ngi ci maa ngi lay baax mm. ziar sama sama xarit waagaan bu baax ñu ngi leen di ziar bu baax a baax kontaan naa tànk yi nga jeegu ba indi ko fii yaag waagaan yàlla na leen doo yàlla defal ay yiw yu bëree bëri. Mhm. fi ni fi ni tëjee rek Seydina Limaamu ku ko xam booteem ku dégg appelam muy jàmm woote Sénégal mu am jàmm ñëpp am jàmm ak fi réew mi toll lan ngay dénk sa doom yi sa jarbaat sa rakk yi pour ñu gën a dégg woote Seydina Limaamu gën a booloo jàmmoo woote jàmm ci réew mi. waa li ma li ma bëgg ñu ñu def ko rek te xam ne woote bi day gën di sax. te day neex. day gën di neex. bu dëgg. ma bëgg rek na nit ñi bàyyi xel ci woote Seydina Limaamu Mahdi gi te ñu bañ a déglu ñi nga xamante ne ay yàqkat lañu ñi nga xamante ne xamuñu te yaakaar naa ne Seydina Limaamu daf leen di gën di yaay saa su ne. lii nga xamante ne mooy ndaw yi nekk ci réew mi te ku xool internet bi mm-hmm. fan yi nga période appel bi ngir nga ndaw yi nga xam ne ñu ngi taxaw mm-hmm. jël engagement seen bëgg-bëgg lépp di feeñal seen cofeel ci Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam kon ñu ngi ndokkeel njabootu Ahlu Bayti Rasul yëpp sunu sang bu tedd bi Seydina du Maxtaar laay ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaane yàlla defal ko jàmm te may ko wér bu baax ak njabootu Ahlu Bayti Rasul yëpp waaye noonu laay ndokkeelee ki nga xamante ne mooy soxna soxna Thiaw laay ñu ngi koy ndokkeel bu baax soxna Thiaw laay mooy sama sang bi ñu ngi koy ndokkeel mhm. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm Alassane ak Seydou njàppale yaay soob yàppale ak yaay soob mhm. mooy soxna Thiaw laay moom lañ dénk Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ndokkeel ñëpp mhm. xarit yi ak soppe tey gis na sama kër gi sama xarit yi ñëw nañu samay goro yi ñëw nañu goro Awa Seck yi Adja Fari ak ñi mu àndal ak ñëpp waaye li ma ci gën a neex nag waa roy baax daan nga dégg kàddu xale yi waaw ñii nga gis nii ñoo nekkoon kàddu xale yi ñu ngi ñëw. ñoom ñooy kàddu xale yi ñoo nekkoon kàddu xale yi. daanaa moom ñu nekkee ay xale léegi ñu dem ba nekk mag nag. ñun ñu dajaloo waat yàlla boole ñu. ñu ñaanal Cheikh Mbaye di ñaanal ñoom Boubacar Ndiaye ak mhm. ñoom Serif maajoor waaye gis nga sama gars yi toog xam naa war naa bëgg naa sax nga ko dal balaa ngaa dem. mais ni nga tàmbalee appel bi nii moom tubaarkaal. waaw man appel laa am damay ger pareegu ma. ah looy wax ni yii pareegu ma bu na dàq. nga man ngay tànn. yow lay tànnaas mbay da ngaa bëgg a tooñ. ñu mbay kontaan naa trop waaye kontaan naa trop ñu ngi kontaan si ñëpp waaye. waaw roy baax yi nag bëgg naa nga laa leen moom. ayca ñëw mbokk yi bëgg nañu niñ leen ko waxee rek soxna di moom sunu sunu jigéen la suñu suñu lépp la wax dëgg yàlla ñu koy gën a ndokkali ci appel bi nag di ko ñaan yàlla ku fi ñëw gis taraanga yi mu def macha allah saa yu déwénee yàlla na gën a yokk at mu jot yàlla na nga ko gën a man loo ci def rek bu déwénee yàlla na yokk ci barke naa Limam bëgg nañ bu baax a baax jërëjëf ayca mbokk yi ba tey ni ñu leen ko waxee ñi ngi kër Soxna Yaadi ni mu ko waxee léegi ci vidéo bi dégg ngeen ko ñi nga xam ne moom la ñu toogal ay nit yi démbam la ñu ah kàddu xale yi yaakaar naa xale yi daanañ ko dégg bi ñu nekkee xale ñii la woon loolu la ñu wax papa ñu ngi lay nuyu euh, di la ziar bàyyi la nga nuyoog mbokk yi lay seetaan. Euh, maa ngi lay fay di naan a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim tàmbale ko ci bismillaahi rahmaani rahiim euh, maa ngi nuyu mbokk internet yi. Euh, di nuyu kuloo xam jaam yàlla ba ñu seetaan ci émission bi euh, di rafetlu appel bi euh, dafa di li nga xamante ni daanaka man sax barki maa ngi fi ñëw jeudi jeudi laa si mhm. maa ngi jógee Canada mhm. ñëw pour appel bi man ak soxna Yaadi démb la du tey mhm. ndaxte ñoo bokkoon troupe théâtrale bu ñuy wooyee roy baax mooy xale yi doon roy démb. Mhm. ngir baax tey. Mhm. amoon tamit suñu émission bi ñu doon wooyee kàddu xale yi. Mhm. waaye dara ñaawul boobu ba léegi ñu ngi nekk ensemble. donc euh, tey bu wootee këram pour que ñu mën ko fekk si ñun ñëppay ñëw. waaw donc euh, loolu rek laa bëggoon wax di koy remercier ci accueil bi mu ñu defal. et en même temps aussi di remercier euh, seen euh, seen site bi pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir nous exprimer voilà merci. xanaa bala nga daaneel rek kàddu xale yi ni ngeen ko daan defee roy baax maanaam roy démb ngir tey ngeen baax ni ngeen ko defee ba mucc macha allah baax euh, nan ngeen koy digalee xale yi lay seetaan léegi surtout ndaw ñi jamono ji fi ñu toll réew mi ba ubbee internet bi kàddu yi ngay dégg wax yi ngay dégg jëf yi nii ngay dégg te yéen démb daawu leen def noonu lan ngay digal xale yi lay seetaan. ah euh, xale yi may seetaan daal lu ma ci mën wax daal mooy ndox fu mu doon taa mu ngi fay taaba léegi waaw euh, ñu baax ñu ngi fi di leen di jéem a roy suñu baax ñi euh, te jéem a moytu ñi nga xamante ni safaan la waaw ñun on toujours aimé maa ngi ñax xale yi pour euh, ñu delluwaat ci association théâtre yi ñu doon def bu njëkk ba euh, ñu am ay leader yu mun leen encadrer parce que théâtre dafa nekk li nga xamante ni c'est éducatif waaw ndaxte loolu la ñu tax ba nga xamante ni euh, on a eu nos repères fépp fu ñu mën ci dem à travers le monde parce que quand même bon on a on avait fait des à travers les régions Hein? Ah, et je hommage en passant à notre euh, à notre grand Cheikh Mbaye bi nga xamante ni moom mii moo créé woon la troupe et moom mooñ ñu doon formé lépp lu ñu doon tey yàlla ginnaaw yàlla moom la ah donc Cheikh Mbaye qui en ce moment euh, euh réside en Belgique donc euh, ñu ngi koy rendre hommage euh, parce que il nous a donné vraiment une formation solide qui nous a permis aujourd'hui d'être là où nous xale yi tamit lool laa di ndigal pour que ñu mun di euh, dellu ci théâtre yi euh, et en même temps ça va leur de pouvoir euh, s'éloigner de lépp li nga xamante ni fitna la te nekk ci mbedd bi voilà. kontaan nañu ba. <laughs> delloo naa kontaan merci beaucoup kii ba tey ni leen ko waxee rek ñu ñëw ci appel bi ànd ko ak soxna Yaadi hmm? xaritam yi nga xam ne ñoom ak moom démb la woon tey doog a ñëw kenn ci ñoom. Euh, moom lañ leen bëgg a dégtal rek mu wax ñu naan la dundee appel bi ren fii ci kër Soxna Yaadi ñu ngi lay nuyu di la dalal. salaamalekum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu yàlla fal cat Yaadi it ñu koy gërëm ak di sant man dafa dëgg yàlla c'est la première fois nag ma ñëw ci appel yi mais yàgg na maa bëgg pour ñëw ci. mais tey ren moo ci yàlla boole di ñaan yàlla it ñu fi ñaan yàlla ko yàlla nangu. yàlla yokk mën-mën nu sunu maam yi ne ci kii bi yëpp yàlla la fa lañ cat daal di ñaana sa digganteeg soxna Yaadi loo ñu ci mën a wax. ah sama digganteeg soxna Yaadi moom ba ma ci laajee naa ci kontaan ndax yàgg na du léegi ba ñu nekk xale la woon ñu bokk benn troupe bu ñu bokk muy roy baax roy baax pour ëllëg ñu mën a nekk ñun lii ñu nekk ñi tey fañ jaar moo tax ñu mel ko te Yaadi tamit la même chose. ñu ngi sant ak di gërëm Cheikh May ak nga doon waxtaanal léegi itam ñoom ñu ñoo ñu yore woon dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di gërëm lépp ndax lu ñu mën tey ji suñu kër wala fu ñu mën a dëkk yàlla ak ñoom la ndax ñoo ñu jàngal lu baax moo tax ñu mel ni ñu mel tey. bi. Ah, sant ak gërëm rek dëgg yàlla man taaliba Cheikh laa waaye ñëpp benn lañ ñëpp benn lañ bokk ci diine rek daal fu ñu ci woo yàlla woo rek incha rabbi dañuy daal di teew. macha allah yàlla na yàlla laf cat rek la ñuy ñaan.